fekkee ni ñëpp dañoo yaakaaroon ni rek jeex na tàmbaliwaat na mu di rek procès bi dox diggante Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru avril njiitu Pastef Ousmane Sonko war a rek jàkkaarloowaat ak Mame Mbaye ci la nga xam ni moo di rek procès en appel fanweeri fan ci weeru mars nga xam ne rek ci lañ mujjee jàkkaarloo la rek juge ba xam le ni rek daan na Ousmane Sonko deux mois de prison avec sursis waaye tamit ab alamaan bu toll ci 200 millions ginnaaw loolee nag ñu bari rek jàppoon ni ab jugement la rek ngir daral mbir yi ndaxit jàppoon nañ ni rek ca mënoonu jóge bari na lool lu ci mel ni nag ay jàmmaarloo yoo xam ni askan wi lay doon takk der yi nga xam ne it ci ginnaaw loolee yàqu-yàqu yu bari dina ci am décision juge boobee nag doon rek tax ba Ousmane Sonko garder ay droits civiques am waaye tamit mën na rek bokk ci élection présidentielle yi 2024 yi réew mi dal lool ginnaaw boobule procès waaye nag kii di Ousmane Sonko ak ñi koy layal ŋàññi nañu bu baax noonu nga xam ne na la procès bi demee woon ndax it xam ne nañ ni rek yenn ci ay avocat am kenn dégluwu leen waaye tamit ñi nga xam ne kenn dégluwul leen waaye tamit yenn vidéo yoo xam ne waroon nañ ko projeté kenn defu ko seen tiitaange nag ak njàqare ga direk rek gën a wëyal ak rek procès en appel bi nga xam ni ki ko interjeté direk rek Mame Mbaye Niang ak parque bi ndax it procès en appel boobee mooy rek xamle ndax kii di njiitu Pastef di Ousmane Sonko dina bokk ci élection présidentielle yu 2024 yi ndax it bu ñu sukkandikoo kenn ci ñi koy layal daan ba su ëppee ñetti weer ci du Ousmane Sonko dootul mën a nekk candidat procès en appel boobee mooy rek mën a àtte ëllëgu Ousmane Sonko ci langue politique gi waaye tamit participation ci élection présidentielle yu 2024 yi